conférence de presse bu ma Jeune Afrique wala monde diplomatique wala RFI soit nous dinañu wala man duma fa parce que man tubaab ëpp décision nga Vous savez, le seul fait que ce débat se pose encore au Sénégal euh, ne n'honore pas ce pays et n'honore pas le président Macky Sall. N'oubliez pas qu'en 2012... Man, je suis am sama conférence de presse bu ma Jeune Afrique nekk fa wala monde diplomatique wala nous tout RFI soit nous dinañu wala man parce que man suis décision nga day fen ñun dañu am fulla ju day ni bu ñu wax ak ñun buñu ñu wax sax ak euh étranger sax dañuy dañuy programmer ci même moment bi ak presse nationale parce que loolu lañ gëm yéen li ngeen wara a xeex mooy ñoom bu ñu waree waxi waxi presse étranger kii war a wax dem wax ak presse étranger presse sénégalais bi moom daal di daw njëkkante reprendre la presse français ba wax te ñoom ñoo fi casse tout le temps que ni duñu waxee fii bitim réew la ñuy waxee ñu conséquent tamit loolu mooy dëgg presse bi dañu a bañ loolu man ñoom ñëpp ñu ngi may woo mais lan leen di wax dañuy def interview ak presse sénégalaise ba pare def interview groupé ak presse étrangère te bu koy def dañ koy mixé du doon France kese la ñuy parce que nag nit yaay may fula sa bopp tax def suñu conférence de presse def version française li gën dangereux

rawatina nak bu ci France duggee gis nga suñu togué Sénégal bay wax nan France ki la bëgg comme candidat ki bëgg ko comme candidat rek woné né ñun tardé nañ lool doo ko mës gis ci pays yi nga xamné Angleterre mo leen colonisé won amul nigeria amul Ghana amul fenen suñu démé ba journaux français nga xamné ñoy porte-voix de la politique France africaine ay le monde diplomatique RFI France 24 ñoom ñëpp au Sénégal naan dañuy dem ci benn affaire privé di interviewé wala def ay article dans la France ne veut pas de Ousmane Sonko euh, et cetera ba pousser Macky vers ceci nangam nangam ça veut dire que ñun duñu nous réew bu indépendant est-ce que France bu amee élection am na benn Sénégal. là où nag law ci Afrique yépp mu posé débat moo tax maa ngi ñaan ba ci Barthélémy Dias maa ngi koy ñaan ndakaaru gi waratul am ay réew Pinella Prada ak ay euh, général de Gaulle ak ñàkk fayda yooyu na ko dindi ñu tuddee ko suñuy maam tuddee ko ay africain yoo xam ne seen seen jàmbarte justifié na loolu te tubaab naa la wax lenn nag ku koy tenir tête la respecté li tax ñu respecté Kagame li tax tey ñu respecté Algérie

ba pare ñu sponsoriser ko mooy xaalis bu bëri lañ leen jox Jeune Afrique def la même chose ak keneen ak keneen man dama musaam sama fulla ci ñooñu conférence de presse bu ma taxaw Jeune Afrique nekk fa wala monde diplomatique wala nu mu tudd RFI soit ñoom dinañu génn wala man duma fa bokk parce que man tubaab ëpp ma fulla décision boobu nga jël fi mu toll man mii moom laa jël mais lol, ça va à l'encontre de la liberté de presse quand même. déet mën mënu nekk ay homme politique sénégalais ne su pas defee conférence de presse le monde du et RFI du talk. déet euh, de la même manière Sud FM warul toog Walfadjri warul toog. xam nga man. oui. presse sénégalaise problème yi bëri na ci yaa ma ko gën Oui. xam. waaye mun naa nangul presse sénégalaise loolu. parce que c'est nous dans nous. Mhm. waaye nit bu jógee fële ci àll ba ñu mission commandée nous du ma ko ko nangul. Mhm. liberté de la presse. Mhm. man tam dama am sama liberté. am naa sañ-sañ ni fii du ma fi waxee. mais ndax sama liberté ndax ragaloo ëllëg ak aussi. ci hmm. dëkk bi nga nekk fa nga yeewoo ñu xatal la fa ba nga xam ne presse bi nga xamante mooy sa presse nationale sax duñ la jox kàddu. yow nga sukkandiku ni ko gisee ci yeneen dëkk nga bëgg a sukkandiku ci yooyu pour opinion internationale yeeg li ngay wax. Hmm. gis nga presse am na solo trop te am na doole. Hmm. waaye ñun dépendre ñu si presse. bi ma commencé politique ba léegi dama ne presse damay am ak moom relation de respect mutuel. même fi Sénégal organe de presse mo joxul respect du fa dugg du fa wax te du té egg fi mu wara egg su ko yàlla parce que ku yaakaar ni am nga pouvoir bu reuy parce que yaa ngi toog di wax sénégalais de la seetaan chaque jour nga xey wax ci Ousmane Sonko te teewul Ousmane Sonko ngi dem su doon presse mooy rey nit présidentiel lan lañ fi deful Tullow Oil moo koy financé rapport ak euh, euh, euh, xam nga lan état islamique hmm. diw diw ay journaux ñoo ko bind def ko seen une man dama gëm ni gis nga fi dañu nekk dans un monde ouvert sous le presse di réseaux sociaux di leneen ak leneen mais dama wax ni. dafa am loo xam ne bu ko nit defee dafa war a présenter ses excuses parce que li ñu def faute professionnelle grave la te ku ma respecté wul du ma la respecté. Ah, léegi léegi nag. Mhm. ma dellu ci si stratégie mhm. Macky dama bëgg Sénégal yëpp xam lan mooy stratégie Macky jàpp na ni fi mu ne nii il a le vent en poupe. dama ngay nax boppam. Je remercierai également mon frère Barthélémy Diaz qui est revenu depuis trois jours et qui s'est très euh, immédiatement euh, enquérir la situation. Répétez, s'il vous plaît. Euh, enquérir la situation. Euh, enquérir la situation. enquérir la situation. Je remercierai également mon frère Barthélémy Diaz qui est revenu depuis trois jours et qui s'est très immédiatement enquérir la situation. <laughs> ministre français assemblée nationale. et le dernier en date c'est ces 45 milliards euh, d'achats d'armes par le, ministère de l'environnement qui n'en est pas habilité. Répétez s'il vous plaît. qui n'en est pas habilité, qui n'en est pas habilité, qui n'en est pas habilité. Et le dernier en date, c'est ces 45 milliards euh, d'achats d'armes par le, ministère de l'Environnement, qui n'en est pas habilité. toute la République est mobilisée pour une simple audition d'un Sénégalais comme tous les Sénégalais, fût-il un opposant. Répétez, s'il vous plaît. Fût-il un opposant, fût-il un opposant, fût-il un opposant toute la République est mobilisée pour une simple audition d'un Sénégalais, comme tous les Sénégalais, fût-il un opposant. ministre français nationale. qui puisse entraver ou qui puisse compromettre le projet que nous partageons en commun. Répétez, s'il vous plaît. Nous partageons en commun, nous partageons en commun, nous partageons en commun. Qui puisse entraver ou qui puisse compromettre le projet que nous partageons en commun. Vous ne pouvez pas souhaiter hériter de ce pays en lambris. Répétez, s'il vous plaît. En lambris, en lambris, en lambris, en lambris. Vous ne pouvez pas souhaiter hériter de ce pays cassé en mille morceaux ministre nationale. malheureusement on risque d'en payer le plus cher. répétez s'il vous plaît. le plus cher le plus cher le plus cher malheureusement on risque d'en payer le plus cher. <laughs> cette mouvance adossée sur un projet. répétez s'il vous plaît. Adossée sur un projet, Adossée sur un projet, adossé sur un projet. Cette mouvance, adossée sur un projet très sérieux. <laughs> il ne faut pas qu'on se perde. nous avons un, pouvoir. répétez s'il vous plaît. nous avons un, pouvoir. nous avons un, pouvoir. nous avons un pouvoir. nous avons un pouvoir très habile. à part après à partir de ce moment il ne restait qu'une option c'est essayer de jeter l'opprobre Répétez, s'il vous plaît. L'eau propre, l'eau propre, l'eau propre. À, part, après, à partir de ce moment, il ne restait qu'une option. C'est essayer de jeter l'eau propre. ministre français sax mënu ko assemblée nationale. l'incertitude pour l'avenir du monde. répétez s'il vous plaît. l'incertitude l'incertitude l'incertitude l'incertitude pour l'avenir du monde ce qui s'est passé est bon est une bonne chose. Au moins. Répétez, s'il vous plaît. Au moins, au moins, au moins. Cet homme préférerait que le Sénégal euh, euh, regresse. Répétez, s'il vous plaît. Regresse, regresse, regresse, regresse au point de tomber dans une guerre civile qui peuvent armer des, des, des rébellions. Répétez, s'il vous plaît. Des rébellions, des rébellions, des rébellions qui peuvent armer des, des, des, des, des, des rébellions. <laughs> Ah, Je déclare du cobu président.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 euh, d'autre part constitué par une compagnie multinationale et notre société nationale Petrocel. Dans le cadre de cet accord, il est convenu d'une phase de recherche et d'une phase éventuelle de partage de production. C'est pour ça que le contrat euh, pétrolier en vigueur au Sénégal s'appelle un contrat de recherche et de partage de production. Donc en phase de recherche, dans l'équipe, Petrocène a une part de 10%, mais n'effectue aucune dépense. C'est la compagnie qui effectue 100% de dépenses. Et en cas de découverte, euh, l'équipe et l'État partagent la future production, donc sur la base de critères comme le niveau de production journalier. Tout cela pour dire que, euh, au final, la part globale de l'État euh, correspond à la part de Petrosen, aux impôts et taxes payés par la filiale locale de la compagnie et à la part propre de l'État. In fine, l'État se retrouve plutôt bien loti dans ces contrats. Et dans le cadre de ce partage, lorsque l'on cumule la part de l'État, la part de Pétrocène qui appartient à l'État et les impôts et taxes qui sont récupérés par l'État, l'État du Sénégal est majoritaire dans les contrats. président rek pétrole 10 mais euh, pétrole bi xaw ma kan moo la ne dix pour cent la si senegal am mais nit bu waxee loolu dafa fekk amul ci amul xam-xam ci pétrole nit nag boo xamul da ngay laajte ndax pétrole dafa am lu ko tënk ci yoon lañ ko tënk muy code pétrolier code pétrolier moom mooy wone ci yan condition la compagnie pétrolière war a ñëwee ci réew ak su ñëwee yan risque lay jël moom pour def recherche balaa mooy am découverte ak bu amee découverte nan la découverte boobu nan la ñuy doxee ba mën ko exploiter su exploitation bi jotee nan ak nan la ñuy séddoo la nga xam ne moo ci génn ci diggante état bi ak compagnie bi ànd ko aussi toujours ak suñu compagnie nationale muy Petrosen loolu dañ koy tënk laata découverte di am ak wane ne bu fekkee def na recherche te amul itam ay la moom mooy perte la moo jot a investir day dem loolu bés bu mu ñëw mu am fi compagnie ñëw depuis fukki wala juróomi at dépensé léeg-léeg mu dem ba cent millions de dollars muy juróom fukki milliards wala juróom benn fukki milliards du am résultat mu daal di delloo permis bi dem yoon donc pétrole noonu lay doxe léegi contrat yi nga xam ne ñooy dox di Sénégal fii

dana 10 diisaay bo xam ben compagnie du ko attendre donc dañu nek ñaar ñet est seen doole and ko nak ak compagnie nationale bi muy Petrosen ñu tuddé ko association entre les sociétés pétrolières la société nationale moy l'association et État du Sénégal su ko defee association bobu mom moy wuti alal ci banque ñoo investir de recherche def sismique def ay forage suñu demee ba forage yi am pétrole wala gaz ñu dugaat ci beneen phase bu am solo mooy fi ñu toll nii ñu tuddee ko phase de développement développement bi nag mooy lii ñu am nu mu toll est-ce que yaatu na est-ce que produit bi baax na est-ce que qualité bi baax na ak nan lañ koy produire ba mu nekk njëriñ ci réew mi njëriñ ci compagnie aérienne compagnie pétrolière phase boobu bu pare te pour ñu tàmbali ko dañuy def li ñuy wax final investment décision dem ba xam ne lii buñ ci dugalee alal ju toll nii mën nañ ko produire mu am njëriñ par exemple fii ci suñu frontière ak Mauritanie diggante découverte bi 2016 te 2016 ña ko découvrir ñu ngi jot permis bi ay mille 2012 2011 donc 2016 ba léegi ñu ngi ci liggéey bi bateau yi ñu ngi koy tabax fi mu nekk ci Chine yi ngeen di gis ni matériel biñ ñu koy liggéeyee ñu ngi koy tabax am na yu ñu commencé yóbbu ci géej gi deux mille vingt trois ci njeexatalu at lañu espérer am première gaz bi génn ci géej gi su génnee nag dafa am nu ñu koy séddale d'abord alal jooju ñu si def cinq milliards de dollars boo koy xayma ci suñu xaalis mooy presque budget Sénégal presque wala genn wàllu budget Sénégal moom lañ ci def ci ñeenti at yi pour jënd matériel yi def xarala yi dañuy jël soixante cinq à soixante pour cent ci valeur bi génn moom la ñuy jël di ko rembourser bor yi di ko rembourser frais d'exploitation bi te ay borom xam-xam ñooy liggéey ci lii mag yu jóge Australie Amérique fu ne ci àdduna bi Sénégal am nañ ci expert yu doy su ko defee trente cinq pour cent yi moom la tuddee le moom la ñu tuddee li ñu war a séddoo d'abord lële dañ koy rembourser bor yu bëri su ko defee at mu ne nag bor yi dañuy wàññeeku donc la ñuy rembourser di gën a néew di yokk si li ñuy séddoo donc noonu lay demee te mbir mu compliqué la du mbir ñuy wax ci ay rajo di di wax lu nit nag fii dañuy wax lu leen neex wala wax loo xam ne xamuñu ci dara mel nag ay ay lañu si te liñ ci wax xamuñ ci tuus loolu moo xaw a yàq réew ñi xam duñu wax ñi xamul duñu noppi waaw ce qui fait que dafay indi ay jeexi jaaxa ak ay jaxaso donc Sénégal li mu def ci pétrole amul benn réew ci Afrique bu ko defagum ci ay kuréel yi ñu tëral ay loi yu ñu teg te dara feeñagul dara commencé gul nan la ñuy exploiter pétrole bi la génn nan lañ koy utiliser loi yooyu yëpp war nañ ko assemblée nationale wane contenu local ci ban wàll lañ la ñuy def ci biir Sénégal loo xam ne nécessairement ay doomu Sénégal ñoo ko war a def ba ci lépp li logistique gars yi dem ci géej gi di yóbbu matériel hélicoptère yi dem di yóbbu liggéeykat yi parce que gaz bi ak pétrole bi si digg géej la nekk téeméeri kilomètre si biir géej gi kon loolu du caaxaan moo fay yóbbu nit kon loolu nañu bàyyi ñi xam di wax Sénégal ñëpp ñoo naw organisme bi saytu transparence si wàllu extraction ak wàllu mine pétrole moom moo jox grade Sénégal ci Afrique moo si jiitu ci transparence loolu ay wax kese mënu ko dindi réalité te it nag wax dëgg yàlla man li ma mën a liggéeyal Sénégal mooy au moins ressources yi yàlla feeñal fi léegi ñu teg ko ci yoon teg ko ci fi mu war a tegu te jàpp naa ni ñu ngi wax pétrole ci anam yoo xam ne du noonu su ñu ñëwee mën nañ leen woon xam-xam ci ci loolu loolu moom lu leer la kon nag euh, dix pour cent kaw ma ku ko waxee loolu amul amul du tout partage de production nag buñ ko waxee mooy bu bu ñu xasee génne frais li ci dañ koy séddoo koy séddoo mu ngi mel ne nit lebal le ñaar ñaari junni ne la dem jënd yoroo capital moom moo yor capital mu ne la bénéfice bi loolu yenu na maanaam balaa ngay séddoo bénéfice kay li ngeen jëndee da ko génne loolu est-ce que da koy séddoo lu mënul su nekkoon fen dañ ci joxe diplôme konoon moom am na doctorat kii moo dàq fen ci àdduna bi ndax dafa fena fena fena ba am ñu ko gëm ci fen yu muy fen Ousmane mii fen daf koy jaral nit ñi suñuy nelaw mu toog tee bigam ak kayam di xalaat naan suba lan la war a fen askanu Sénégal njaay kii moo dàq fen ci lu yàlla bind fenn askanu senegaal ba ñu ko gëm mu nekk ci ay caaxaan ndax ñépp xam nañ yàlla nu mu amee sutura defal ñu bëccëg defal ñu guddi Ousmane di duq caaxaan di fen askanu senegaal di mooy sunu boroom di fen askanu senegaal di njaaloo di fen askanu senegaal ba pare di leen gëmloo ustaas te moo dàq fen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ne ko ndax jullit dina fen dafa jug taxaw yuuxu di topp naan jullit du fen jullit du fen ba ñaq tooy xepp waye Ousmane bu mu ñëwé pour fan askanu Sénégal njaay sunu borom wër ko won ñuko ñun ñëpp ne kii kat la kii kat la ki matul kilifa yalla won ñuko ñu bañ ko gis di gëmu suñu bëtt di fowé suñu xel ñuy saga ndayu jàmbu ndax Ousmane Sonko di xass bayu jàmbu ndax Ousmane Sonko di xass doomu adam ndax Ousmane Sonko te luñu ñu yep yépp mu ngi ci mi mom moom kat bu bon bi fan kat bi ki luma ko wax dina ka xeb ndax dafa nax askanu sénégal ci lamagne bu neex ñëpp xam nañ guddi couvre couvre fa amul benn guddi bu ko upp sutura amul benn guddi bu upp sutura guddi couvre fa guddi bu nga xamal dañoo tere ñëpp genn nga genn suñu borom weer la ndax ci lu bon ni nga nekkoon Yalla won ñu yaay kan am ñen ci ñun deugar bop wallahi sa buñ la joxe rew mi di nga toroxal Sénégal njaay ba senegal yeb dinañ nek ci safara yow ya mëna fan ya mëna fan a Ousmane yow yaay trompeur waye rew Touba bi ndax Touba bi mu koy defar far nga nekkon bagnes bi maam Bañes bi mu koy defar fan nga nekkoon réew maam El Hadji Omar Ndaw bu mu koy defar fan nga nekkoon kon du jaw mi yaa koy yàq sa kanam gu ñeme gi mën a fen bay bëgg a dee yàq nga askanu Sénégal jaay di nga tàddal jeunesse bi yëpp fenkat bu bon bi. yow pour waxuma de ce pays là mais gis nga boo génn ñun en deux mille dix nii. ay étudiante lañu woon Arabie Saoudite di fa jàng Riyad université bi ñuy wax ya fa lañ doon jàngee ñu sonnoon fa torop ñu jël seeni seeni université yu màgget saoudien yi laa lay wax de yu màgget lañ ñu dugaloon ñu fa doon jàngee université yoo xam ñoom seeni buur sax fa lañuy seen seeni nit seen cadre yi sax fa lañ jàngee dañ ko tëj léegi nga xam ne dañoo defar yenn université yi bees pour seeni doom ëllëg bu ñu paree ñëw ja dugg fa ñu ñu tëj yooyu ñun université yu màgget ñu jox ñu ko suñu bourse yi da daan tardé ba pare lekk yu congelé lañ ñu daan jox suñu micro-ondes yi condition bi desoon quoi mais gis nga bi ñu yëgee ne président Macky Sall dafay ñëw ci ambassade ba Riyad ñu doxee jaam ya ba ba ba ca ambassade Sénégal ba nekk Riyad dem fa gis nga bañ fa demee ñun ñëpp ci suuf lañ toog du ma ko mës a fàtte ñu toog mu génn ak oyofam de comme ni mu def ak rappeurs yi ni génn ñëw taxaw wax ak ñun nañu lan la ñun ñëpp ñu wax ko suñu problème plus de 400 étudiants ñun ñëpp ku si ne wax ko li ñu metti gis nga jour boobu même jour noonu la ne gars yi foofu ne leen ut leen ay bus ngeen yeb ci étudiants yi damay ànd ak ñoom si seen ministre de l' éducation. loolu masi président Macky Sall àndal rek ci saa si defaral nañ ko PV woo na ministre de l' intérieur ci saa si woo na ko yaa ngi dégg mu àndee mu yóndee ko ay PV yoo xamante ne nii tak tak pour xamal leen ne ay cadre la àndal taf taf yóndee nañ ko ay PV yoo xamante ne cabinet am na ñu muy àndal suy dem voyage ñooñu tak tak pour xamal le président Macky Sall dafa pare rek. defal nañ PV boo xam ne ak ñun liñ fa wax yëpp tapé nañ ko ci ay machine wax li ñu metti yëpp bañ demee xoola diplomatie lañ ko defee lépp la dem teg ministre bi jël ko liir à luqatul arabiyya pare liir ko anglais ci saa si ñoom fi ñu toog mu daal koy ne lii nangam nang xoola lépp ci këyit nekk ñu sax dialogue bi motul sax une de temps mu daal di pare ne leen ministre bi ci saa si ñu toog noonu mu woo ministre mu woo mu woo ñoo xamante ne ñoom ñooy enseignement bi suñu université ñu convoqué ci même jour bi ñu ñëw xoolal ci même jour bi lañu ubbi beneen université bu bees tàkk boo xam ne tout est conditionné da ngay toog lépp micro écran lépp yu nouveau modèle ñu dem toogi fa di jàng xoolal ci saa si ñu suñu iqaama dix ans la def mooy suñu carte nationale euh, carte euh, euh, suñu séjour quoi dix ans nga xam ne dañu ko génne même pas un mois carte yi génn suñu suñuy bourse le vingt huit mu mu ñëw te lépp si diplomatie la ko defee nga xam ne réew mi président Macky Sall àdduna moo ko fonk naar yi noonu lañ ko gëmee fonk ko mais moo tax bu ma gisee fi sénégalais ils sont si ce sont des jaloux qui sont ici dans ce pays là billahi man de faa yeewu da surfe ci internet bi dégg ñu naan fa war a def troisième mandat ak war na koo ñàkk a def ak nga de xalaat yow ñeme ngaa ñàkk a def troisième mandat yow loole loole de faa foog ne sa xel sa xel mi xalaatul ko yow ñoo ñu fi bëgg a baal ñii ay tëggkati bool ki i tëggkati cin kii xoolal ma borom xabtaan bi léegi moom mel ni may ga may nga xawsa yi ñooñu nga ñu fi bëgg a baal yow nga de liggéeykat pont Foundiougne bi VDN bi pont Lubaful bi pont Farafeñe bi surtout pont Farafeñe bi man sa réalisation yëpp booboo ma ci daqal Farafeñe li ma fa daj bag bi ay bag bi li ma fa daj ñiy tukki xam nañ ko yooyu liñ ma def foofu ma da lekk omelette seen meew yooyu ne ci pot bi gàmm yooyu dama ko defaral korno ba fi ganaar yi maa ko jeexal benn bi suma biir bi daw na si ñetti fan bag boobu ay bag boob li ma fa daj sàcc nañ fa sax suma portable ma defa fanaan ñetti fan boo ñëwee gàmm yooyu ne bu rooda wàcc nañ léegi nag boo ñëwee wéris ngay def wéris dégg naa Dakar def na fa teer loo xam ne boo ñëwee fa nga yéeg rek mu yóbbu la fa nga bëgg a jëm autoroute ila Touba stade yi ah, jam ñaajo ni ko def yow ñeme ngaa dem foo jom loolu dafa foog ne xalaatoo ko man ma de woo fukki mandat ak wit ak neuf nit ñi da wax ñett waaye nit ñi xanaa fañ dof wala fañ gumba bourse yi ndimbali maire bu ma dëkkoon suma koñ bi fii mu ñëw ne ma ah man de faa jot benn message suma portable bi lii le moo de lan ma ne ko Macky Sall laa ko dimbalee nit ñi mu ne ay sant naa ko fukki junne suma yaay jot na ci xam na ci duñ ko wax wala vous êtes dox gëmba nihilisme nihilisme total am na ñoo xam ne ñu ne defoo dara man gis naa ko fukki junne yéen seen yaay jotu si ndimbali oh politique sociale lom d'ouverture l'homme de dialogue l'homme qui œuvre pour l'humanité le président li l'union africaine le président d'Afrique mu ngi wutal sax baat uni ca Nations Unies mu ñu fay wutal cadeau ki ngeen bëgg mu dem ngir yalla xolal boy dem dimbalé ma ci Jamaïca rek man Jamaïca la bëgg ma dem fa dundu ci rasamani bu ma mënta am amerique may ma Jamaïca billahi wallahi talaay do ma fi ba ak ay tëggkat kat ci yow ñi me dem fo jëm man ni ñi xana feñ gumba xol xipi leen seen ngeen xol kilifa gaangi ni borom fulla ji borom fayda yi rew mi dal na réew mi amna sécurité jamm ji dundu ko neex gi len rek la la meuna blamé moy bul jay carte bi jariñ li moy suñu jaayee 2 millions de cartes de ñu 2 millions de sénégalais bëgg nañu président Macky Sall nekkat candidat 2 millions de sénégalais nak suñu taxawé ne président bëgg nañu nga nekk candidat loolu kenn mënu ci dara ndax c'est la majorité qui décide moo tax du ñu wax ay waxu yoon ay waxu mën na ko mënu ko. man maa ngi marié depuis 2005 yor samay njaboot di di liggéey di xëy heure di wàcc ci heure ci mairie Ziguinchor bi ak sama naataange yi toog su fekkoon mës nañu raté heure liggéey nga sanctionné ñu nangu mais bañ ñëwee Ablaye Balde daf ñu form ñu nekk xale yi nga xam doon xamuñu dara peut dañ daan topp politique bu ñu xëyee yuuxu dem mais 2014 dañu taxaw ne déet ñun foofu ñu buuxante mag yi am dara Ablaye Badio xool ñu xam ne ne ñun capable nañ te sañ nañ mu jël ñu tañ ñu ci wetam nekk agent municipal ci mairie bi parce que bu dul dara ay diplôme yor nañ suñu yor nañ suñu bac am nañ suñu licence comme sant yàlla ba ñu ñëwee mu jox ñu teranga malheureusement contrat la mu bëggoon kaa renouveler bu gagné woon mairie bi ndax amoon na yaakaar day gagné mairie Ziguinchor surprise am ci Ziguinchor waaye waaye nag ñu ci sant yàlla peut-être lii moo gën Ziguinchor xooluñu dara gisuñu dara ñu ne seen mairie kan lañ koy jox un spécial bu rox bu rox boobu est devenu bu yokk parce que ñun joolaay loolu lañ naan dañoo sonn bu yokk mooy dama sonn ñun dañoo sonn moom dafa newoon bu rox la teg mais bu yokk donc ñëw nañ mairie Ziguinchor liggéey nañ suñu contrat jeex nañ Ablaye ba mu ñëwee fekk na fi ay contracté Robert Sagna élément Robert Sagna yaa ngi fi. ndax mhm. fi kenn. Mhm. ñeneen ñi da leen bàyyi contrat ñeneen ñi ñu jël leen. ñun ñu ngi liggéey Ousmane Sonko mënuñoo jël. mais daf ñoo dàq parce que lala néew ñu ci ginnaaw. Mhm. te bu dul dara bu dul politique ay doomu jigéen soog. fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo suñu teraanga fii la nekk. ba ñu ñëwee jooy nag yàlla def ñu wan ñu madame Baaxum. Ah, mu ñëw wax ak ñun ñu wax ak moom échanger moom ci njëkk ak ñu ko si appuyer encore nga jotoon na woo Doudou di ko si ñaanal aussi mu wax ak Doudou Ka parce que ñun ñu ngi ci ginnaawam aussi di ñaan yàlla bépp leader bi nga xam ne ne leader Casamance la da nga nekk ci mouvance Benno Bokk Yaakaar ñun les agents municipaux yi nga dañ ñoo dàq ñu ngi am li nga xam ne daf ñu ci xol ba léegi ba léegi daf ñu métti parce que ku mel man dama daan wax sax congé laa nekk sama collègue yaa ngi nii mais tey anamu dañ lay soxla jël la nga ñëw liggéey journée nga dem lan moo ñu amoon njëriñ comme ñu dàq ñu. Mhm. ba ñu xam ne ñun xarañ nañ mun nañ liggéey lan moo tax ñu yeewoo waa ñuy liggéey journée di ñibbi parce que man léegi damay journée mairie buñ ma soxlaa woo ma ma ñëw journée dellu vraiment madame Ba parce que sama liggéey la dama ci am jikko balaa may toog balaa may toog. may leen ko may leen ko may leen ko. may leen wala mën naa faa am benn dix mille pourquoi

donc ñun bu ñu ñëwee ba toll foofu noonu dañu nar a xeexal leen dafa ñu toll. ñëpp ñu ngi seen kër ñu ngi leen di je me demande qui peut payer. À, hein. à, combien la course ah, La course, c'est là la... Non. est là. est là. Absolument. je prends le véhicule.

ñu taxawoon ci taxi yi dañ ko war a jël moom kese quoi. après représentant bu ñu indi le trésorier de réclame. merci beaucoup. sa garage. garage boo maraîcher. boo maraîcher. Adama Sam. Ah, Adama. C'est Alhamdulillah, j'ai de l'émergence. Alors, salam alaikum. Salam alaikum. maa ngi sant. waaye li am yàlla xam na ko Abdou Mboub mi ànd ak sa gannaaw am na lu mu ñuy def loolu ñu ngi ñu ngi ci jàpp yàlla la yàlla jàppale. nekk ya jeex na. teel a wax askan wi lii ni ñu jote naag Adji saar ba ay vidéo di ci am kon xam ngeen ne li ci dëkk bi du fi dee man de bis ni ki tey bàyyi naa Pastef parti bu bon bii essence laay ak pétrole taal ko caga bu bon bi ñu dajale suñu alal di la ko jox ndekete yooyu yaa ngi dem si wit boote dafa tëdd ay gone ba ay vidéo di tasaaroo ci réew mi cam mu ne boo ñu waxoon lii coono bi ñu daj ci yow jël suñu alal def ko ci yow hm? fu ne ñu dem fa tiiree la ko su di ko ci réew mi ndeket yoo yow nga taxaw yëkkati sa loxo ne li fi xew boo ci laale woon dara dara du ci am te ndeket yoo tëddee nga gone gi Ousmane Sonko xam nga ne yàq nga yàq nga Sénégal loo xam dootoo ko defar ba abadan yàq nga réew mi. nee nañu fa dem vingt une heures naam dem naa fa vingt une heures parce que li ma yëg ci sama yaram ba xam ni war naa dem defi sama séance de massage man maa ko xam te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 aji saar man de woon naa la aji saar de man ko xàmmee que jaawle woo ko am na ku fi nekkoon niroo nañ de mais du moom de. mooy ni teenuwaay bu rafet la te dafa njool am forme nag te dafa set daa set wecc waate guñ sa tey samedi bi ñoom nee dañu guddee waa ci dañu liggéey ba si kanam ma ne xaaral ma woo la boole la ak moom fekkee defoo dara nga jaar fa boo fa jaaree da am dara de xale bu set la. kii nag aji la tudd. aji aji la tudd est-ce que jaawale woo ko ma xale jigéen ñi dañoo niroo de mën naa am mais man de wax dëgg man islaam eh, ak lu tax mu dem fa nga laaj eh, ndax dafa ne dafa feebar eh, mu wane ab kayitu ordonnance ni dañ ko digal kinésithérapie charia lum ci wax mooy dafa xaram ci bépp fànn ndax ku ku dëkk ci réew mi am culture tuuti xam nga ni salon de massage boobu du salon de massage kinésithérapie waaye ay caay-caay kese moo fa nekk ay xale yu jigéen yu dem ubbi seen salon amuñu benn diplôme kinési eh, seen publicité yi nga xam ne ñu bëri man ci taalibe yi ak eh, parce que ñun ay nitu diine lañu dañuy gëstu tamit ndax du ñu tëb rek wax eh, lu ñuy publicité seen salon mooy ñëwal summeeku ba set ñu toppatoo la ba ba nga am mbégte wax yu ñaaw yooyu xal képp ku ko publicité ci dëkku diine dëkku charia dañ la war a jàppe ci bés boobu tëj la kaso duma la juróom-ñaar fukki yar yu métti yar la yar yu métti loolu mooy atte bi ci charia ki fa dem ak ki koy def yépp la ñu war a jàpp duma leen duma yu métti bu dee dafa ne am na oustaz bu ko ko digal yaakaar naa oustaz boobu bu dee dafay ànd ak moom oustaz bi war na di wax dégg oustaz ba juum na ba ci kanamu yàlla ndax xaw ma ban école la jàngee ci ban idéologie la ko teg way teguwut ci mazahibul arba suñu waxe mazahibul arba moy ñenti école yu l'islam sukkandiku ludut ñenti école yoyu ko fi tudd ci école rek l'islam reconnaître ko sukkandiku diine yépp Afrique Asie Amérique ci continent yépp weesuwut ñenti école yu mag yoyu moy imam Malik imam Hanbal imam Shafii ak imam Hanafi ridwanullahi alayhim ajmain te li buñ ko waxe dafa nek lo xamne ala ittifaqul ulama wal jamhur bépp borom xam-xam bu mus a wàcc ci kaw suuf ci diine accepté nga ñeent ñi gannaaw biñ feeñee ñi kenn waratul sukkandiku lu dul ci ñeenti école yi moom la alamu islami bi yépp nangu keneen ku fi ñëw nag bees la te defagu fi ñaar ñeenti téeméeri at te yooyu kenn du ci sukkandiku imam boobu ko digal loolu imam bi juumloo na ko ba ci kanamu yàlla bu dee imam bi la ci moom la sukkandiku te moom culture générale ci suñu gis-gis yaakaaroon naa ni waru ko may muy juum juumte gu rëy googu maa ngi wér gu yaram gu mat sëkk kanseeruma ah ci lu ma yëgul jabetuma aw ma insuffisance rénale aw ma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah yàlla daf ma nattu ba may nekk gone ba fima ma toll nii ma ànd ak ay jàngoro yoo xam ne dafa laaj faju

dafa mel nit ñi parfois dañuy inciter nit ñi génn leen ngeen dem rayante te loolu c'est pas normal waaw fulla ndax ki naan laan génnal nga rayante doomam newu fi mhm. ki naan laan génnal nga rayante damay bëgg moom muy jiitu bu rayante amee nit ñi topp seen ginnaaw waaye nag jeunesse bi dañu am fulla ba ku mhm. leen la génnal nga rayante mhm. boo génnee gisoo ko nga delluwaat sa kër nga delluwaat waaw mooy li am solo defe naa ne loolu ñu ko xamee ni ko Zeyna waxee ni ñu ñu comprendre ko noonu parce que tey defe ne euh, coow lu mu bëri bëri bëri waxtaan

jur nañ la yar la toppatoo la ba nga toll ni nga toll ñu yaakaar nga war lañ mën a dimbali yow amoo benn fulla sa bopp lu dul benn politicien boo xam ne ci jamono ji mu lay yónni pour nga xeexal ko nga leen di rey sa bopp ci loolu ñooñu lañu war a waxal tey man awma je n'ai rien à dire aux politiciens politiciens yi sikk nañu ba noppi munoo dara si ñoom mais jeunes yi leen topp au nom de quoi et pourquoi di génne ay jaas yi di tëb di dal ci loo xam ne politique de loolu politique débat d'idée la ku nekk na ñëw ak programme am ku nekk na ñëw ne askan wi lii sama mbëbët ci askan ku nekk toog déglu parce que yàlla may na ñëpp xel seet li la gënal bésu vote nga dem vote dem ñibbi. loolu lan la ci ay xeex ak kii li soyez mobilisés le combat s'annonce mortel le mot n'est pas de trop.

d' accord euh, loolu moom euh, mooy bi ci des su fekkee ne wax nañu ne moom dafay yore ngànnaay bu yore ngànnaay ki koy séen du ko xam lislaam bépp góor bu am jabar hmm. wéet ak jigéen ci néeg ngeen tëj loola atte njaaloo lañ lay atte kon yow daal jàpp nga ni Ousmane Sonko euh, fii léegi ñu ngi jàpp ni daan na dem foofu noonu. li mu def xalwatu ci nga loolu bu dee réew la comme Arabie Saoudite. waaw dañ koy rey dañ koy jam xeer ba mu réew yu koy appliqué du réewu jullit yëpp ñoo koy appliqué mais am na réew yu koy appliqué Iran ci la bokk Arabie Saoudite ci la bokk ak yeneen i réew. ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل لنا ودائي ومنزل الشفاء والدواء من امر العباد بالدعاء ليدفع به عن البلاء ثم على من حيث مسست مدد يبرأ بلا وفات بالخير محمد الطبيبنا الحكيم

man Barthélémy Diaz nee naa man tubaab la namp lire nga léegi article 27 peut faire un mandat de cinq ans nul n'a le droit yow da nga jàpp ne Macky Sall am na droit def troisième mandat xam nga porox ndoll bu ko mën may mu def troisième mandat c'est ça la vérité lu ma la wax may mun a mooy suñu 3e troisième mandat man Barthélémy Diaz du marche Do bouger du bouger té du tal rew té ma ñew nak

soo que catholique sa xalaatu bok nga dóor ko sa armoire bible ngay tek ñun suñu alcorane ak suñu bible ak suñu toxa euh, Torah mooy constitution du Sénégal. donc te constitution du Sénégal. ma paraphraser li nga wax. constitution du Sénégal yow Barthélémy Dias doo marche do do do tal rew parce que da ngay conformer wu ci constitution bi et que constitution bobu nga xamné voté nañu ko par référendum 2016 mayna droit Macky Sall possibilité mu mu mu représenter représenté wu pour un troisième mandat. Que la réforme constitutionnelle qui a été introduite par le référendum de 2016 n'a pas encore tranché la question du champ d'application. Euh, nous avons saisi le gouvernement d'une question écrite en tant que député pour savoir si l'article 27 était applicable au mandat en cours ou pas. Et la réponse du gouvernement par le biais de son ministre de la Justice, c'est qu'il ne revient pas au gouvernement d'interpréter la Constitution. Et donc, rien n'empêcherait le président Macky Sall, s'il parvenait à décrocher ce second mandat, de pouvoir briguer un troisième mandat en 2024 en considérant que l'article 27 n'était pas applicable à son premier mandat puisqu'il ne pouvait pas rétroagir la constitution du Sénégal à l'heure où je parle elle parle de nyari mandat ou « mhm. la constitution du Sénégal ne parle pas de mandat de juróom donc le mandat de Macky Sall 2012 2019 constitution du Sénégal du quoi considérer non non non non non du quoi considérer tu parles français tu le comprends je parle français je le comprends la constitution du Sénégal dit que ça c'est grave hein? la constitution du Sénégal dit que tout Sénégalais qui devient président du Sénégal, a droit à deux mandats de 5 ans. Macky Sall un mandat de 5 ans. Donc Macky Sall, ces deux mandats de 5 ans, selon la constitution du Sénégal, c'est le mandat 2019-2024. 2024-2029. Voici les deux mandats que Macky Sall peut briguer selon la constitution du Sénégal. Tel dinaa la jox Vous tey dinaa la mm-hmm. troisième mandat xam nga ñun nag euh, xam nga ñun politiciens des fois dafa am ñu yàlla bindee man ñun on savait que Abdoulaye Wade avait droit à un troisième mandat. Il est modeste, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est efficace. Et c'est peut-être cela le plus important.